di leen ñaanal yàlla euh, di ñaan ngeen ñaanal yu yàlla euh, fa tabarakallahu dikkaat nañu ci suñu tafsirul alquran bi ñu baaxoo woon def ci bés bu ne ci antivi mu ngi woon ci suuratul baqara ba léegi yàlla ne wali kullin wijhatun huwa muwalliha فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يالنا نولي كل يالنا بيب خير تي خيات يجكي وجهة سين جبلو واي هو موليها خيات ودفا جبلو فاستبقوا نغين جكلنتي الخيرات يوي نغين جكلنتي يوي واو na ngeen jëkkalante yiw yi baadiru ila taati ila taati wa qabuliha aynama fu ngeen mënti nekk yaati bikumullahu yàlla dina leen indi jamian mbooleen seen mboole seen yowmal yajmaukum dina leen dajale yowmal qiyaamati bés pénc yu yujaasikum bi amalikum kenn ku nekk mu fay la li nga jëfoon inna yàlla qadirun aji attan la ala kulli shay'in ci lépp lu munti doon wa min haysu xaraj fépp foo xam ne génn nga ci tukki yow yoom di tukki yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa walli na nga juga jubal wajahaka sa xarkanam sataral masjidil xaraami ah peggu kaaba ga mooy jublu kaaba ga wa innahu jublu kaaba ga lal xaqum wallahi mooy dëgg min rabbik tukkee sa borom bul gëstu leneen bul xalaat leneen fépp foo xam ne nekk nga fa jublul kaaba ga waaye innahu ndax jublu jublu kaaba ga alxaqu mooy dëgg mi rabbik tukkee ci borom wa ma laahu déet yàlla bi xaafilin muy sàggane amma taamaluuna li ngeen di jëf ba du leen ko fay déet yàlla li ngeen jëf dina dina leen ko fay wa min haysu xaraj foo munti génn fa walli na nga jubal wajaxak sa xar kanam masjidil Harami, peggu kaaba ga wa haysuma kuntum fu ngeen munti nekk yéen jullit yi léegi fa wallu na ngeen jubal wujuhakum seen xar kanam ye chataruhu côté kaaba ga moo tax munul julli te julli gi baax te nga moy xibla faaw nga nga jublu xibla moo tax jàkk yi ak juma yépp dañuy jublu kaaba ga li yàlla yakuuna ba du nekk li naasi ñeel yahudi ak mushriki yi aleykum ci yéen xujjatan lay dégg nga illa lesin lare gaa nga xam ne zalamu tooñ nañ minhum ci ñoom bil ina di ndir fetteerlu rek fa innahum ñoom yaquuluuna ما تحول إليها إلا ميلا إلى الدين يونت صلى الله عليه وسلم شانجي والقبلة لدول جبلو تيرك جنگ جنگ تي دين رك يالا نفلا تخشوهم بولين لين رغال تي سين ويرانتي يوي وخشوني رغال لين رغال لين من يالا ولي أتم من غير متال نعمتي سما عليكم تيين wala allakum ngir yéen taxtaduuna ngeen jub ilal xaq jëm ci dëgg kama arsalnaa ni ma yónni woon fiikum ci yéen rasulan yonent minkum boo xam ne dafa bokk ci yéen muhammadun alayhi salaatu wasalaam maa ko yónni ci yéen yatulu muy jàng aleykum ci yéen ayatina alqo suñu alquran wa yuzakkikum mu ngi leen di sellal yutahhirukum min ashirki mu ngi leen di sellal min ashirki ci bokkaale ويعلمكم من لين خمل آه، ويعلمكم من لين خمل الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام لب لو خمل نك نتي القرآن تي أي أتى ما تهن ليك ليك دنيا وحنا القرآن موام دو لو خمل دنيا كوي خود دينان موتاخ مونيو دو باركيلوم def def ko ci sen neeg wala def ko alquran lu ñuy jàng la lu ñuy firi la ba xam li nekk ci ate lu de dagan ak lu araam yépp ci alquran la ne kon alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a firi afdalul ulumi tafsirul quran nee na alquran xam-xam yépp tafsirul quran moo ci gën ndax nag risaala boo xam ne lii risaala leetar la boo xam ne yàllaa ñu ko yónnee lettre bi nag faw ñu firi ko ñu jàng ko pour xam li nekk ci lettre bi ñu mun ci appliquer am na ci loo xam ne euh, digle la am na lu tere la am na ay ay xissa la am na am ay ay waaraate am na loo xam ne mooy waadu ah dige wal waid ak tëkku loolu yépp mu ngi ci alquran lu dagan ak lu araam lu ñu sib ak lépp mu ngi ci alquran alquran jooju waruñ ko firi soo ko firee lan noon nooy xamee lu dagan ak lu arab xadis yonent bi sallallahu alayhi dafay ñëw yonent bi sallallahu moom mooy mooy mooy interpréter alquran ci xadis suñu firee fii loo xam ne dégguñu ko ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo koy leeral su ko defee nag alquran dañ ko war a firi dañ ko war a jàng firi ko xam lu mu tekki lu xaraam ak lu dagan kon yatulu mu jàng mu ngi jàng aleykum ci yéen aayaatuna suñu alquran du pour barkeelu de pour jënd ko saraxe de du pour jënd ko dugal ci sa oto de dugal ko ci sa sa sa sa néeg de déedéet wa yuallimukum mu ngi lay xam mu ngi leen di xamal alkitaab alquran wal xikmata ak attee yu nekk ci alquran wa yu mu ngi leen di xamal maalam takunu loo xam ne nekku leen woon taalamuna di ko xam kon xam nga nu ngeen di def fazkur nii fazkuru nii na ngeen ma fàttaliku bi salaati ci julli wa tasbihi ak sabbaal wa nax bi ak lu nóorook moom man itam azkurukum ma fàttaliku leen dëng حديث بيغا خامني يونس بي عليه الصلاه والسلام واخنا كو من من ذكرني في نفسه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه كيب كو خامني فاتلكونا فاتلكونا من يالا تي ويت ما فاتلكو ما فاتلكو كو من يالا كيب كو خامني فاتلكونا تي مبولو ci mbooloo man ma fàttali ko ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloom kon fadkuruni azkurukum fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen loolu loo koy déggee te am na ñoo xam ne balaa ñuy fàttaliku yàlla rek am njàqare am problème soo ko fàttaliku yàlla xanaa xamu ne am na ñoo xam ne balaa ñuy dugg ci jàll jukk jàkk ji julli dañu am problème soo leen gis gisee ñuy këpp këppal ci julli jàkk ji xamal ne am nañu problème suñu dugalee seen dossier <laughs> te dossier bi të nga gis ñuy ñëw ci jàkk ji di julli guddeeg bëccëg su dossier bi lijjantiku lijjanti ko dootoo leen gis am na ñoo xam ne ñu ngi jubli ci examen bac walla BFEM nga gis ñuy julli ji jàpp di julli ji ñëw ci jàkk ji ci sàpp yi su paree su ñu amee ba pare walla ñu ñàkk ba pare dootoo leen gis loolu mooy jaamu yàlla yàlla ne fazkuruni azkurkum sooy fàttaliku yàlla jamono ji nga ñàkkee jama jamono ji nga oomalee jamono ji nga feebaree jamono ji nga wéree wéree jamono jamono joo xam ne amoo soxla soxlaal yàlla soxlaal yàlla waaw ma ne nañ seetaat sax koo xam ne balaa muy fàttaliku la balaa mu lay jaamu la am soxla waaye su ñëwee léeg-léeg sax nit koo xam ne balaa muy mu lay nuyu am ci yow soxla barewul looy fay faj soxlaam de su ñëwee da nga ne kii soxlaam moo ko fi indi ndagam nit moo amee noon fur la am na amee noonu faayida euh, euh, saxantuma yàlla taxantuma yàlla soo dul jaamu yàlla doo julli doo woor doo def dara bàyyi ba am soxla ñëw ñi diis ko yàlla yàlla ne ko déedéet soxla moo tax nga ñëw ci man bi nga amulee soxla ñëwoo ci man kon ah mu ngoog fazkuru nii azkurukum nit jaam na fàttaliku boromam fu mu munti ne na fàttaliku boromam fu mu munti ne gis nga fàttaliku yàlla nag dara génnu ci julli dara génnu ci julli gis nga julli moo dajale bépp jaamu yàlla booleem jaamu yàlla yi jullee ko daj dajale julli sooy julli salaato ngi ci qiraatul quraan a ngi ci tasbiix a ngi ci ah saw ma ngi ci loolu yépp mu ngi ci ci ci ci ci ci julli soo julli rek dajale nga mbooleem jaamu yàlla yi dajale nga leen motax tax mu ne asalaatu imaadu diin waaw kon fazkuruni azkurukum fazkuruni ashkurukum washkuru li na ngeen ma sant ashkurukum euh washkuru li na ngeen ma sant na ngeen sant sama xewal bi taati ci top wala takfuruni bu leen ma weddi su ma la joxee xéewal man yàlla su ma la joxee xéewal santal yàlla su ma la joxee wér wér gi maa ko joxe kon jaamu ma yàlla jaamu ma jaamu ci wér ga ndax maa ko joxe kat nu noonu soo amee alal jaamu jaamu ci alal ga alal ji maa la ko jox maa la ko jox وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نغين ديبانس سي علال بو خامني وا جيكيول سي لوخو امنا سي لوخو كين بنين لوخو بيمو نيكون مان ماكو جيلي سي لوخو كوكو تيكو سي لوخو كون دنكو سي ووتو كون ديبانس سي جوخيل سي نغير يالا غا ياكار ني يور سو كونت مو فيس دل دل دل دل خالص waa jàkk ji joxewoo ci jumaa ji liggéey jumaa ji joxewoo ci dëkkandoo yi joxe woo ci daara yi alquran yi dimbali woo kenn fekkoo kenn mu feebar nga dindal ko ordonnance suñ la waxee nga gan gàntal su ko defee ak yooyu yépp yépp te am nga ko ngoon nag nga dem sol sa abbaay di di di di leer na xam nga dañuy leer noonu sol sa abbaay ñëw ci jàkk ji di dóor ay rakk rek du dóor ak rakk rek yàlla ne santooma soo ma santoon dangay bind chèque am loo génne lu am solo ñëw ci waa jàkk ji am leen lii walla ke dëkkandoo yi nga nga dem ci dëkkandoo yi am na ñoo xam ne bi ñu reer ak biig ci guddi ndékki wala bi ñu ndekkee boo xam ne añu amuñu añ te yow yaa ngi desal bay dugal ci frigo yi nga jàppale leen gis nga luqmata tahwi fi benn jaay afdalu min binaay alfi jaami benn tibb boo xam ne danga ko jox jullit mu lekk ko suur yàlla nee moom moo ma gënal nga tabaxal ma junni juma ndax nag juma yi dañ koy tabax ngir nit ñi di ci jaamu yàlla waaye yàlla bindul nit ñi ngir juma yi nit ñi xamuñu priorité am ñoo xam ne xamuñu priorité xamu lan mooy priorité waa ji doon ñëw ci jàkk ji te defa feebar yóbbu nañ ko hôpital nga dem këram jël lu mat cinq cent mille wala deux cent mille trois cent mille nga jënd ordonnance yépp jël rabitaay ma yóbbu këram nga xam ne dafa feebar xam nga ko doo ko def nga denc sa xaalis léegi nag waa ji Euh, denc sa xaalis waa jàkk ji def groupe ñëw ci yow daf délégation ñëw ci yow ñu yow jox leen un million walla wala jox leen cinq cent mille pour tabax jàkk ji xamoo priorité soo xamoon priorité loolu nga jox jàkk ji da ko jox waa ji feebar dëkkandoo boobu feebar te amul nga am jàkk ji lu mu rafet rek suñ ko tabaxoon ba mu mel ne ah tabaxee ko jama tabaxi ko ay marbre def ko def lu ne mu yaatu rafet lool nit ñi suñu feebaree duñ fa dem suñu tiitee duñ fa dem suñu xiifee duñ fa dem suñu rafalee duñ fa dem balaa ngay toppatoo jàkk ji doo toppatoo ñiy dem ci jàkk ji ah toppatoo ñiy dem ci jàkk ji parce que jàkk ji su nit ñi feebare demuñu anamu léegi anamu léegi misaal maa ngi ni nit ñi feebar nañu wala ragal nañu feebar wala tiit nañu moo tax jàkk ji weetul jàkk ji weetul weet na su ko defee nag soo amee alal balaa ngay def ci jàkk ji demal def ko ci ñuy dem ci jàkk ji ba ñu mën a delluwaat ci jàkk ji waa ji feebar na te dafa doon ñëw ci jàkk ji demal seeti ko waaw demal seeti ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne hadisul si yàlla de nee na feebar na kenn seet man yàlla feebar naa kenn seet si wu mu ne yàlla nooy feebare mu ne benn mbokk jullit moo feebar te demu leen foo ci moom su ngeen foo demoon dina ngeen ma fa fekk hadis la kon balaa ngay toppatoo jumaa ji nanga toppatoo ñiy dem ci jumaa ji soo bëggee jumaa ji fees nit ñi dañuy am sécurité mën a dem ci jumaa ji dañuy euh, suur mën a dem ci jumaa ji dañu del suñu raflewul hein? dinañ dem ci jumaaji ak yu mel ak yu mel ak yu mel du ah, kay kay imam yi am ah, bala nous sax ñu ah, comme que imam la euh, waaye dama koy wax ci tour imam yi ñu yi yi nga ñom ñoo suñu suñu suñu suñu suñu suñu wéré duñu duñu duñu xam suñu wéradee su duñu xam suñu xiifee duñu xam suñu rafeele duñu xam dañoo am ay problème nekk seen biir di leen jiite guddeeg bëccëg ah balaa ngeen jël alal ji yépp du ko yóbbu ci jàkk jàppale leen te ñoom kat ñoom ñoo jàppale lu xew ñoom ñooy ñoom ñooy jóg du noonu da gis imaam ratib ci koñ suñu xasee wax tudd walla tàkk walla dese yow su la neexee nga xëy dem liggéeyi ba wàcc dem jaale ji walla dem di wàcc dem jaal ci ngénte li walla tàkk gi moom sañul dem sañul dem waaw sañul dem sañul dem ndax su demee ñu ne dafa leen dooya dal moo tax mu dem su doon ay su doon ñoom diw du dem te nag bi nga demulee xamuñ ndax am am nga dépense xamu ne ndax fay nga fayal nga say doom seen njàng ak yu mel noonu li ngeen di yittewoo li ngeen soxla loolu la imaam bi di soxla te imaam yi moom dañu yaakaar ne dañu war a def ngir yàlla rek ah kay dañu def ngir yàlla waaye itam da ngeen def ngir yàlla ci ñoom waaw kon ñu ñu continuer xaw nañ yàgg fi tuuti ci commentaire yi aywa yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla defal ñu dégg ak topp kon yàlla ne washkuru lii nangeen ngeen fàttaliku sama xéewal wala takfuruni bu leen ma weddi bil maasi ci ci ci mooy waaw yàlla may la alal nga war ko joxe ci jaamu yàlla yi waaye nga bàyyi alal bi guddi gu nekk nga jël cinq cent mille walla lu mel noonu nga jox ko sa doom bu ndaw mu dugg ci dëkk bi di ko fowe bilmancien alal yi da koy fowee rek te su ko fowee bàkkaar bu mu fa bu mu ci am rek am nga ci wàll parce que yow yaa joxe xaalis bi ñuy foye li ñu defee lu neexul yàlla dégg kon ku am alal ku ba bàyyi bu saaxo dafa doon wax ne ñi am alal ñi am alal yàlla laaju leen rakkaa yu bare chèque la leen laaj ci la ñuy sante yàlla sec كيف كو خامني يالا دنك نلا na دنك نلا dénk nga set fo war fi nga wara jàpp nga jàpp fo wa lolou la la yàlla laaj way laaju la ngay ngay ngay julli lu bari wala wala di wor lu bari rek wa dedet joxel ci xaalis bi ya ayuha alladhina amanu ya ayuha alladhina amanu yéen ñi gëm yàlla e yéen ñi gëm yàlla istaeenu na ngeen dimbandikoo alal aaxira ci alaaxira bi sabri ci muñ ala taati ci topp yàlla wal balaa ak nattu wasalaati ak julli na laax yàlla ma assaabiriin mu ngi ànd ak way muñ gi bil awni ci ndimbal wala taqulu bu leen wax li man ñi nga xam ne yuqtalu rey nañ leen fi sabilillahi ci yoon yàlla mooy jihaad bu leen wax bu leen yaakaar ne amwaatun bu leen wax ne amwaatun way dee lañu bal li fi nekk ñuhum ñoom ahyaun way dund lañu arwaahum fi xawaasili tuyuur xadra tasrahu fil jannati ñoom ñu martir mooy shahid bu leen yaakaar ne way dee lañu déedéet yàlla neen seen ruux yi maa ngi koy def ci euh, euh, laafu njanaaw yi ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy naaw ak ñoom fil jannat ci àjjana walakin li fi ne walakin li fi ne laa tashuruuna xamuñu loo xamuñu loolu yàlla ne wala nabluwannakum wallaahi ci dëgg-dëgg wallaahi ci wala nabluwannakum danaa leen nattu bi shay'in ci dara yàlla waxul ne ma wala nabluwannakum min al xawfi déedéet bi shay'in gis nga shay'iyatu boobu dugal na lépp léeg-léeg mu nattu ci doom léeg mu nattu ci alal léeg mu nattu ci xam-xam léeg mu nattu la mu nattu la mu hmm? bi shay bi shay minal xaw fii léeg-léeg mu nattu la nga ragal foo nekk sa fit du dal ngir ragal sa noon yi wal juuxe walla mu nattu xiif xiif kër ga dara amu fa walla mbe mbey ngeen waaye mbey mi nanguwul te ragal ngeen xiif yàlla nattu ko wa sin minal am amwaali walla mu am période boo xam ne ay bakkanay wàññeeku lu mel ni pandémie bi pandémie bi yàlla nattu leen ay feebar ay bakkan yu rot comme Covid 19 bi. wa nag si minal amwaali walla seen alal li ngeen di li ngeen amoon ci alal mu yàqu ngeen liggéey di perte walla ngeen liggéey mu yàqu mu làkk yu mel noonu yu mel noonu yu mel mën nañ ko wax lu bare wa nafsin wal wala am fu si waxoon naa ko léegi ay ak i bàkkan yoo xam ne dañuy root wa ak meññant yi yàlla dina leen ci nattu yàlla ne li nuq euh, la nuxbirannakum fa nanzur a tasbiruuna dinaa leen nattu ma seet ndax dingeen muñ walla du ngeen muñ yàlla ne wa nanga na nga gaa yi nga xam ne dañu muñ na gaa yi nga xam ne dañu muñ alal balaa i ci nattu ya bil jannati ci àjjana na nga leen bégal képp koo xam ne nattu naa la nga muñ hmm? yàlla ne dinaa la fay moo tax ci xadiisul qudsi يالا ن موغي وخني من لم يرضى بقضائي ولم يشكر على نعمائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي فليعبد ربا سواي كيب كو خامني لماي دوغال نيخولا لماي ناتو مونوكو مون خيوال يما جوخي سانتوكو na nga génn ci sama suuf asmaan nga dem seeti beneen boroom boo xam ne bu dul man nga dem jaamu ji ko yàlla nee allazina gaa yi nga xam ne isa asaabatum su leen jotee musibatun balaa qaalu ñu daldi di wax inna ñun kat lillaahi ñeel nañu yàlla ñun daal yàllaa ñu moom milkan wa abidan ci moomeel wa abidan ak jaamu yafaalu dina jëf binaa ci ñun maa yashaa lépp lu mu soob lépp lu yàlla dogal ci ñun rek gërëm nañ ko moo tax xaj malik radiallahu anhu mu ne wa raddini bilqada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yàlla mu ne yàlla yàlla nag ma may lépp loo xam ne nattu nga ma ko lépp loo xam ne dogal nga loo dogal mu ànd ak sama ngërëm man ma ma ma ma gërëm loolu wa inna ñun raajiuuna way dellu lañu ilayhi jëm ci yàlla subhanahu wa taala ulaayka ñooñu meloo melokaan woowu alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun njëggal min rabbihim tukkee ci seen borom wa rahmatun ak yërmande walla xéewal wa ulaayka ñooñu hum ñoom almuhtaduuna ñun ñooy way jubli yi yàlla ne inna safa wal marwata min saairillaahi yàlla dafa dogal xeer wu ñuy wax safaa ci màkk ak marwata wax nañu ne ñaari nit ñoo xam ne dañu bëggoon dem moy ji yàlla amuñ fu ñu ko fu ñu ko defee léegi ñu joxante rendez ci kaaba ga ñu dem moy ji yàlla bay génn yàlla soppi leen ay doj waaw bu jëkk mu ngi tuddoon ishaaf ak naila xaaji malik radiallahu anhu wax na ko naxwa israafin wa ma eh, ishaafin wa ma wa ma wa wax na ko ci ci ci ci ci ci xilaasu léegi nag bi ñuy aj nag su ñu ñëwee ba foofu nga xam ne ñooñu yàlla de leen soppi woon su ko defee ñu wane ginnaaw bañ koo xool waaw safaa mooy ku góor ki wal marwata mooy ku jigéen ki isxaaf ak la isxaaf mooy safa la mooy marwa bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ñëwee yàlla ne inna safa wal marwata min shaa min shaairillah ak marwa kat bokk na ci màndargay diine yàlla su ngeen ñëwee ku aj na daw safa ak marwa te sooy dem daw safa ak marwa na ngeen tàmbalee fi yàlla tàmbalee fabda'u bi ma bada bi su ngeen ñëwee ci safa ak marwa na tàmbalee safa soo euh, départ safa dem marwa yàlla ne inna safa gis na doj wi ñuy wax safa wal marwa ak marwa jabalaani bi màkkata min saairillaahi bokk na ci màndargay diine yàlla fa man xajj képp koo xam ne aj na albayta néeg bi awi tamar mu def umra fala junaax déet bakkaar ali ci moom an yatatafafu mu wa mu mu mu wër dëng bihimaa ci ñoom mooy mu jaabante bihimaa bi an yasa baynahuma saba saba an mu daldi dox diggante Safa Marwa juróom-ñaari yoon yàlla ne waman tatawwa képp koo xam ne coobarewu na xayran yiw fa inna yàlla shaakirun aji sant la li amalihi jëfam dëng alimun aji xam dëng bihi ci jëf ji xam nga lan mooy coobare coobare léegi yàlla def la sant kooru fadar mooy weeru koor bi mu pare nga gunge ko loolu coobarewu coobare la yoo yaa coobarewu gunge weer wi du noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen xëy di coobarewu yàlla sant santu la ko waaye soo ko joxee yàlla mu ne ma jël loolu mooy coobare lépp loo xam ne du farat te soo ko defee nga am ci tiyaaba te nga def ko te kenn forcé wu ko loolu mooy coobare munoo woor ndax dangaa amee ulcère boo xam ne docteur yi nee nañ bul woor du noonu dootoo mun a woore walla nga amee jabet jabet ji dafay bañ xiif dafay bañ euh, koor munoo woor tout ta vie munatoo ko walla nga amee li ñuy wax euh, feebar yi tere kii rek euh, ah, as asthme walla nga amee lu ñuy wax euh, lu ñuy wax tension tension boo xam ne mënatoo woor yow sa dund mënatoo woor yàlla nee na bés bu ne ah, bés bu ne soo xëyee da leele da Euh, dangay euh, wut loo xam ne ndogu jullit nga jox ko ko lu mu jullit mën a ndogo nga jox ko ko léegi nag ñaat ñaata la nga jàpp ne palaat ceeb téeméer la jar mu ne ko kon naa joxe téeméer du noonu ak exemple laay joxe am na ñoo xam ne ñuy sant ba ñoo xam ne <laughs> palaat ceeb moom suuru leen du noonu ndax dañu foqale ñuy sant sàll ak ba ak mel noonu ndawen yi léegi nag yow téeméer nga waroon joxe téeméer nga waroon joxe nga ne man di damay joxe mën naa ko damay joxe ñaari téeméer wala damay joxe ñetti téeméer waaw ñaari téeméer wala téeméer yi ngi ci teg coobarewul yàlla dina danaa ko fay na danaa ko fay waaw nit dafay def lu mu mun ak lu mu kii li nga xam ne fii nga mën a yem te am na nga kàttan def lu ëpp lool nga def lu ëpp lool yàlla da la koy fay rek dégg nga yàlla moo tax ne yàlla wa man tatawwa képp koo xam ne coobare na coobarewu na xayran yiw dégg nga dégg nga lu mel ni tawaaf lu mel ni yooyu fa inna allah yàlla shaakirun aju sant la aju sant la لعمله تي جفم عليم اجي خم به تي موم سو كون سوكو ديفه نيو تك سي سوني بارام يالنا يال ديفال نيو دغ اك توپ نيو توفيق اك تيسير بي جاي صلى الله عليه وسلم يالنا نيو يال ماي كور بو يو بو كور غو خامني كور جام يالنا نيو يال ديفال قبول يالنا نيو يال نانغول سوني كور اك سوني جامو يال ييب نافله يي سارخ يي ييب jëf ji baax yépp yàlla nañ ko yàlla nangul lépp luñ ko mooy yàlla nañ ko yàlla jéggal yàlla nañ yàlla de jéggal lu ñu xam ak lu ñu xamul lu ñu tey ak lu ñu teyul yàlla moo jéggalaakoon yi yàlla nañu yàlla jéggal bi jaay seydu bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu